dëgg la combat bi jàppoon nañ ko pour le treize mars waroon yëpp ñun def nañ ko. lii Nicolas mooy wax. télévision yi ñuy liggéeyal day waroon ko def mais nag yàlla mi dara teewul dafa ñëw am ndogalam ndogalam mooy Modou dafa am choc. choc boobu nag wax dëgg yàlla moo tax combat bi dootul mën a ci am le treize mars. choc bu ñu déggee choc lan la exactement. Euh, je vous reçois très mal Simon. waaw waaw peut-être euh, xarale dama ne boo bo boo waxee choc choc euh, ban genre choc la. voilà Modou Lo en fait dafa am euh, choc bu mu def entredement France bi mu nekkee France. Mhm. donc moom mu ngi egg si Sénégal jeudi à lundi à quinze heures vingt minutes ci la egg donc bu mu itam affaire boobu sonnal ko. dafa am rupture de ligament ci épaule jaune bi mm. épaule gauche bi mm. donc bi mu demee hôpital aussi ñu dindal ko ay kayit kayit yooyu bu ñu jébbal ma ko par le biais de son manager mm-hmm. man ak manager am mi ngi nii CNG lañu jóge léegi nii gisee nañu ak président Bira mm-hmm. jébbal nañ ko kayitu hôpital yi nga xamante ne moom lañu jox moom itam médecin CNG convoqué na ko suba waaw dina dem aussi pour ñu confirmer loolu parce que dafa war a dem si biir opération États-Unis wala France. Mhm. waaw la daal mbir mi kon daal instant bii nii euh, mën nañu wax ne le treize bi ñu doon séntu mënatul am mais peut-être euh, graaw wala graawul parce que rupture de ligament pour ñiy def sport quand même xam nañu ko euh, ça veut dire que vraiment le lutteur moom vraiment mënul mënul bëre mënul mënul bëre. waaw moom loolu moom c'est sûr et moom mënul bëre le treize moom loolu moom. bi moom xam naa ne man nii ko gis aussi ni ma ko gisee loxo bi dañ ko immobilisé. Mhm. gis naa ko donc. Euh, na daal combat bi Modou euh, bi yéen ko laaj ko jox léegi ah. ba ma woo ko moom a dem ci médecin ak chirurgie. Mhm. ci guddi wala après demain lay dem France wala États-Unis